culture au service du développement. Le pot de chacun de nous pour le bonheur de tous, la solidarité à l'état pur. Safina, système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Safina FM, retour aux bonnes valeurs. Formation et éducation, éveil des consciences. Notre credo, quittez le bien Aspire au meilleur. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنبوك الحاج عمر جان ابن مولاي الشيخ سيدي الحاج البرجان التجاني مولين لإندلسن سن اميشيون تجار جار شيخنا سيدي أحمد التجاني الشريف الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين جني توبتي تيري بنيوة كشف الغيوم عن بعض أسرار قطب المسجد مكتوم أكتيري بنيوة مختارات من رسائل الشيخ سيدي أحمد التجاني الشريف الحسني رضي الله عنه وأرضاه مي أم الجمو بنك قلنا جل الجمعة تتروازر بكتر إن شاء الله تعالى نتي انفيتم بوك يب مي أم في سفينة اف ام إن شاء الله تعالى تي الجمو بنك نيجي واخ اوديتورك اوديتريس ييغا خامتاني سافونا نيو سفينة اف ام نيو ديغلو ايميشن بي دي جار جارو شيخنا سيدي احمد التجاني الشريف الحسني رضي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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين احسن الله عاقبتنا وعاقبتكم واطعنا ما يكفينا وما يكفيكم أدام الله انتفاعنا وانتفاعكم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلوات الله وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي سنت يالله سبحانه وتعالى نيجي قرم يالله سبحانه وتعالى ci xéewal yu raw yu rëy yim ñi defal mënee su koo takk mënee su koo lim cant yëpp moo ko jagoo moom yàlla subhanahu wa taala ñu ngi julli di sëlmal ci sayidina muhammadin mi nga xamante ni mooy buntu yàlla bi xéewal yépp ci moom la ko yàlla jaarale mu soog a agsi ci ñun ñuy ndokkeel mboolem jullit yi ful munti nekk ci adduna bi ci weeru tedd ci weeru alquran di leen ci ziyaara di leen ci baalu xaq di leen baal di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan mu nangul ñu suñu xeetu jaamu yàlla yépp jéggal ñu suñu mbooleem bàkkaar yi ak suñu rëcc yàlla ñu yàlla xaaral boppam laqal ñu boppam fa yàq yëggul musal ñu ci cheytaane ak ci pexey cheytaane mboolem ñiy déglu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax ni assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu li mu làmb ci yurmaande ci njéggal ci jàmm ci xéewal ci barke yal na ko yàlla dott ci seen kaw ba yowm al qiyaam nag mu bañ a dagg benn yoon tabarakallahu di ziyara di ndokkeel ceerno hamidou yero bane di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala di ko ziyara ci koor gi di ko ci baalu xaq di sakku ci moom ñaan ak ci mboolem ñu nekk ci suufam suñu directrice xaaja ñimma ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala di ko ndokkeel di ko baalu xaq di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala di sakku ci moom ñaan di ko sant tamit di ko gërëm sukkaru koor bi macha allah am na solo lool yal na ko yàlla fay yiw ak njabootam yëpp ak personnel am ñu koy jàppale technique bi mala moo ci nekk tabarakallah ñu ngi koy nuyu jaare ci moom nuyu ñi ci des ñëpp ñoom Samba ak ñeneen ci des tabarakallah ñoom Biraan duñ fàtte wuñ kenn mboolem waa kër gi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara dem nag ziyaara ji mawlaaya cheikh Seydi Abdul حفيدي مولاي الشيخ سيدي احمد تجاني رضي الله عنه اقعي رقم سيدنا سي طيب دنجين وقتان مريبي مدفني باسه تبارك الله اك مقام جه سيدنا سيدي حيدر اك مقام جه سيدنا شيخ عمر دي مكتسي طيب دي ركتي شيخنا سيدنا سيدي علي حيدر ما شاء الله تعالى نونو لني زيارة شر محمد البشير مجيتي أسرة الحاج عمر بن سعيد الفوتي المجاهد الأكبر دندوكيل شرنو يب يدنك تسوفم ما شاء الله تعالى خمجن سمالين دون لم تيجي تمس فيلا ما يفك نوني لني دمتي آوان زيارجي دوكيلي شيخ الحاج محمد عبد العزيز الأمين جيت تفهمي سيد الحاج مالك أكم بولا مركمي دوم بايم يب روتنا شيخ الحاج مالك بالشيخ الحاج عبد العزيز أك أي ركم يب دمجنا زيارة مولاي الشيخ سيد أحمد التجاني ناس مجيتتي جبوت شيخ إبراهيم بي أكم بولا منكتي سوفم دم لونا زيارة سيدنا Seydi Ibrahima Niass ci usra maam alxaaji Abdallahi noonu tamit lañuy ñuy ziyaara mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci suñu liste bi tabaarakallahu Ajaa moom mi nga xamante ni mi ngi géejawaay bu jaxatee Ajaa Coro jaxatee ajaa raki daaf ajaa roqiya jallo ajaa nogay faal maire ajaa selin faal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala duma fàtte ndongali ak groupam yëpp ñu ngi leen di nuyu Haaj sama soppe cheikh alhaaj ñang ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala aja nogay faal aja faatu mata siise aja rakki diallo ñoom ñëpp macha allahu taala fàttewuñu kenn soxna isa faal bu HLM macha allahu taala soxna yëpp daal rawatina Aja Aminata Dumbuya ak mboolem ñi jigéen ñi nekk ci gannaawam ku mel ni soxna ñimma jaata ak maymuna xam ngeen ni waa daayira sopp sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ñoom incha allahu taala suba la ñuy def seen conférence ñu ngi leen koy yëgal ci turu eh, directrice Adja ñimma moo ne naa ko yëgal auditeurs yëpp ndax incha allahu taala jaam bu xeebu bi moo ko war a def incha allahu taala ànd ak suñu shérif Seydi Ibrahima Haydara macha allahu taala moom mooy def première partie bi ñun ñu def deuxième partie bi incha allahu taala conférence bi conférence bu am solo lay nekk ndax dañuy waxtaane ñaari ñi nga xamante ne mënu ñoo tàqali ko muy doom ak ay waajur mënuñoo tàqali ko abadan seen ay xaq nag seen ay droit mom lañu wara war insha allah taala kon ñing ngi koy yëgal ñëpp nak personnellement ma ngi koy yëgal alxaaji ñang diko ko yëgal mbooleem auditeurs yi nga xamanteni ñom safo nañu safina rawati nañu nek fële ci yof ñom imam shayba ak ñom morfal ak ak libas ak ñëpp tabarakallahu kon ñing leen di nuyu di leen ziyara ñu delisu si ci suñu lettre mawlana ابن tijaani radiallahu anhu ubbi woon na lettre bu ñu demee ci muxtaarat min rasaili cheikh lettre bi mooy numéro 41 mais bu ñu demee ci page bi ñu toll tey jii nii page bi mi ngi nekk 187 ndax lettre bi dafa xawoon a gudd moom la ñu tàmbali woon tey moom la ñuy war a àggale inchaa allahu taala nga gis ni kon bu fekkee résumé nañu lettre bi mawlaaya cheikhna sidi ahmed tidiane dafa digal sidna sidi mohammed ibn abdillahi tilimsaani te lettre bii nii boo demee ci kashful xijaab imaamu sukayriji danka ca fekk ci téere bi ma yor ci kashful xijaab mi ngi tolloog page 437 boo demee di nga fekk lettre bi seydi imamu sukayri je radiallahu anhu indina ko ci kashful hijab ak ci yeneen téere sax ci téere tariqa bi mu ni mawlaaye cheikh sidi ahmed tidiane doon ko digal ay ñaan yu nga xamante ne waxoon nañ ko ci émission bi passé mooy nit ki bu sëlmalee ci julli faratam yi war na def ay ñaan su dee ñaan yi ma wax ni yépp dafa bari nga ni ma waaw yow nag dangaa bëgg su ma sëlmalee ma toog fa ba beneen waxtu julli fekkaat ma fa ma ne la waaw waaw waxtu julli ak waxtu julli diggante ba yépp taalibe tijaan bi mën nay def ay tasbihaat waaye du ko yàqal liggéeyam soo dee technicien nga da ngay dem ci sa ordinateur bu dee directrice nga nga dem ci say këyit di bind bu dee maçon nga dem ca sa euh, liggéey ba truelle ba bu dee keneen nga nga dem fa continuer say sikar Cheikh Tidiane Gaye rahmatullahi alayhi mos na ma wax mu ni ma xaaji Omar mu ni ma xam nga ñun Tidiane yi suñu tasbihaat yi du jeex ma ne wallahi du jeex suñu baaqiyaatu saalihaat sax la ma wax mu ma xam nga ñun Tidiane yi suñu baaqiyaatu saalihaat du jeex man ko wallahi wax nga dëgg ndax liñ la wax ni moom ngay def gannaaw julli yépp doo toog ci benn place di ko def kon kay yow doo liggéey doo lekk sax doo naan waaye da ngay continuer ak liggéey bi di ko def am na ci yoo nga def ko du lekk du naan du liggéey du dara da ngay continuer di lekk di naan di ko def ndax liñ la tere rek mooy laazim bi ak wadifa wi ak yenn tur yàlla yu mag yi moom boo koy sikkaat nga xam te ne li gën sax mooy kenn bañ laa gis yooyu moom doo lekk doo naan lu dul nga pare te soo paree sax li ñu bëgg mooy nga toog 30 balaa ngay lekk balaa ngay naan moom la ñu taamu ci tariqa bi moom gannaaw wadifa loolu ngay def gannaaw wadifa da ngay toog 30 minutes doo lekk doo naan gannaaw laasim loolu moo gën nga toog doo lekk doo naan bu dee nag da ngay war a naan nga naan lu tàng bu dee da ngay lekk nga lekk lu tàng balaa muy fay sa xaal bi nga xamante ni ci nga jóge woon euh, kay bu gaay jàpp nag ni dama wóorul moo tax may wax lekk ak naan de damay jàngale tariqa bi li mu jàng waaw maa ngi ci koor gi bu baax a baax ña ngeen ñeeg faaleen yi ak gayeen yi wax lañ ma wax ni ma ndax ajuma bii di ñëw ñu xool ba xam naka ngay def kon na mi ngoog yal nañu yàlla nangul suñu koor yi ñun ñëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mawlaaye cheikh sidi ahmed tidiane mu ni soo sëlmalee balaa ngay wax ak kenn na nga jàng allahuma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin walam xatin waxoon naa ko ajuma passé soo paree loolu nga teg ci ayatal kursi ba walaa yaudu xewduhuma wa huwa al ali azim bul fatani ni dani waxon na nga jàng shahid allah annahu la ilaha illa hu man nga ko ci tek so pare shahid allah ba ila al islam nga tek ci qul illahumma malikal mulki ba ba xisaabin soo paree ci Cheikh Tidiane di digge ba legi nga tek ci fa subhanallah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 jàng ko yàlla dina la fajal sa mbooleem aajo yi donte aajo yi juróom benn fukki aajo la ci benn bis bu nekk rek yàlla dina la musal ci ay noon dina la musal ci cheytaane dina la musal tamit ci bët bu bon waaye dina la xoolee moom yàlla subhaanahu wa taala bëtu yërmandeem bëtu ñeewantam te ñaan yi soo koy jàng yàlla subhaanahu wa taala ci waxtu wu nekk ci waxtu gudd yeeg bëccëg gi dana la boole juróom-ñaar fukki million ci ay malaayka ñuy bind say yiw jamono joo ko jàngee rek ba keroog di yàlla di wal bufta ba yamu fa de Mawlaana Cheikh Ahmad Tijaani nee na ku koy jàng yii mu lay wax gannaaw julli gu nekk yàlla dina la bindal ci limu li nga xamante ni moo nekk ci kaw suuf si ci ay xeer wala ci ay ay bant yaakaar naa foofu la ñu yemoon léegi nag Mawlaana beneen من وإن من قال بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس déglu leen bu baax ñaar yii waxtu yii Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane wax wa inna man qaala wér na ni koo xamante ni wax nga baada salaati subxi gannaaw julik suba ila tuluci shamsi ba jant ba di fenk wa baada salaati al asri ak gannaaw jullik tàkkusaan ila gurubi shamsi ba jant bi so muy ñaari waxtu yi nga xamante ni tere nañ la yow nga naafila ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama moo la ko tere yow jullit bi yonent bi moo la tere ni la bul naafila gannaaw jullik timis ba gannaaw jullik tàkkusaan ba jullik timis diggante tàkkusaan ak timis kenn du fa naafila donte tey jii nii gis nga ñu bari ñuy dugg ci jàkka yi di julli boola leen waxee ñu ni jàkka ji la ñuy nuyu waaye naafila wuñu léegi nag nañu wax nuyu jàkka ndax mënul nekk naafila kooku benn la beneen bi ci des mooy boo jullee suba fa nga jullee suba amatoo droit ngay naafila lu dul jant bi yëkkati ko gis ngeen ti jamono ji léegi ñu bari dañuy julli suba rek imaam sëlmal ñu jóge rek day ndeysaan ndax ñàkk xam fiq jànguñu fiq dégguñu seen diine boo ñëwee kay ci jàkk ji yow fekk ne imam julli nga ànd ak moom benn rakaa rek soo paree yow toogal def say tasbihaat ba jant bi yëkkatiku nga soog def sa bo naafila boo am nag nga def ko foofu bu dee nag da ngaa tardé woon fajar tardé nga fajar tardé nga suba si imam jiitewu la boo ñëwee waxtu woowu yow kay mën ngaa julli sa ñaari rakaa fajar ndaxte li illa al wirda li naimin anhu waaw loolu loolu boo demee nga jàng téere fiq yi di ngay fekk ni kooku sharia ci boppam moo ko may moom na julli fajaram ndax ñaar ak ay fajar yu rëkk rëccagu ko ndax mi ngi ci biir muxtaar bi mu soog a nag sóobu ci julli subaam gi julli suba lu ko neex waaw mu bu ko neexee mu jàng raka saar yu gudd ndax suba si xaw na yaatu tuuti waaye naafila nag moom dañ ko faa tere te xadis la de naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an salaati baada salaati subhi xata tatlu alshams نلقى واحد تمت عن الصلاة وبعد الصلاة العصر حتى تغرب الشمس يعني مو قال دق نيب شيخ سيد أحمد تداني رضي الله عنه لي أنت بيجان على رك لولا يدف ما تحكي سنجا يوم ولا بوا فاف دوا تنا فيلا من لكنا كاي ما جهل الله سكر دق الشيخ تداني مو دق الشريعة من وإن من قال بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس نعري وقت ما يب شأن تداني تدنا لين نلا لا يبقى xam nga yow foofu sant nañ la fa nga lazim wala déet nga ni waaw waaw ah lazim yi kat moom farata la kooku du naafila de lazim gannaaw tàkkusaan farata la bu la rëccee nag naafila woo wérdoo gannaaw tàkkusaan ah ñu ne la timis ak gee nag mën ngaa wérdu sa wérd donte da ngay wasifa mën ngaa lazim wasifa wala nga wasifa lazim balaa ngay julli gee nga ni ko chenatidaan yi man lan lay wax mu ne la waxal subhanallahi mi marra والحمد لله مئة مرة خلاص nga wax subhanallah subhanallah téeméeri yoon walhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wala nga wax walhamdulillah téeméeri yoon xam nga yow lee bokkul ak sa baaqiyaatu saalihaat ndax sa baaqiyaatu saalihaat 33 nga waxoon 33 33 nga tëj ko léegi loolu moom baaqiyaatu saalihaat la mais lii nag beneen zikkar la bu la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane jox boo xamante ni da nga koy yokk ci sa sikkar yi nga doon sikkar bu la neexee nga def ko gannaaw boo sëlmalee ba laazim ba pare bu la neexee nga def ko balaa ngay laazim yëpp mën na nekk bu la neexee sax nga toog ci jàkk ji def say tasbihaat yëpp bay ñibbi nag ci yoon ba nga koy def téeméeri subhanallah te benn subhanallah rek yonent bi moo waxoon sallallahu alayhi wa sallam mu ne tëmla ul misaan dafay feesal misaan bi dell ba ba def ba def koy daaneel kii mooy Cheikh Tidiane moo baax mooy sëriñ bu baax bu mën a digle yiw te li mu digle nag boo demee ci sunna rek nga fekkaat ko ci kon ñi ñuy wax ni yow déggoo sunna kon comme ñoo comme ñoom ñoo xamul ndekete ah lii kat man li ma gis nii mooy Cheikh Tidiane dégg na affaire yi de mu ni kaana lahu min al ajri fii kulli waqti min al waqtayni nee na dana am ci yool ci bépp waxtu ci ñaari waxtu yii mu la wax diggante suba si ak tisbaar ja a diggante suba sa waaw ba jant bi di fenk ak diggante takku takkusaan ba ba timis diggante boobu nga xamante ne yow wax ñu la nga naafi la fa bu fa julli bu fa da ak li julli di foor yëpp yëpp yëpp mu ni la nag bul bul bul bul bul bul julli waaye defal subhaanallahi téeméeri yoon walhamdulillahi téeméeri yoon bu ci nekk nee na da am ci yool ci ñaari waxtu yi benn bu ci nekk ajri mia badana mutaqallaba hadiyatan inda al bayt xam nga su fekkee ni dangaa sikar sikar bi da ngay am badanatan mutaqallabatan hadiyatan inda al bayt badana bi dañ koy firee naaqa mooy gileem wala boog ñu ni baqara ñu ni ñu ni ñu ni eh, nag téeméeri giléem boo xamante ne dañ la koo nongul da nga koo joxe hadiya ci néegu yàlla subhanahu wa taala xam nga alquran badana bi danañ ko danañ ko jàngee tamit budun am na ci riwaaye bu ñuy jàngee budun boo demee ci alquran dafa noo xam ne wal budna jacalnaaha lakum min sha'airi llah wal budna jacalnaaha lakum bi daal bi dang ko koo boobu da nga koo ko da waaye bu la neexee ngool nga dem ci riwaaya boo xam ne dafay wax wal buudun wal buudun daal bi da koy domme Mawlana Cheikh Tidiane xoolal junni yiw waa téeméeri téeméeri naaqa téeméeri gileem wala téeméeri nag nga joxe ko hadiya تنيغو يالا بو ميل ني كعبة الله المشرفة نياتا غي أم تطول هدية نيو نونغو لا هدية بو تيامو الفوفو دي نيانا دانا يلا نونغو تميت ومئة فارسين التيميري فس يو قمن تاني دان كاجو خي في سبيل الله تيوني يالا يامو الفوفو موني وعيق ميرا قبا أكو قمن تاني دفا غوريل تيميري جام wa lahu mila ma bayna alsamaai wal ardi xasanaat nee na kooku dana ko ñeel mu am loo xamante ni dafay fees diggante asamaan ak suuf ci ay yiw ku def téeméeri subhaanallah walhamdulillahi bu ci nekk téeméeri yoon gannaaw jullik tàkkusaan ak gannaaw jullik suba senatiyaani nee na da nga mel ni ku am ci yool ku joxe téeméeri naaqa téeméeri gileem wala téeméeri nag wala téeméeri fas ak téeméeri fas ak téeméeri fas wa mi a wa waaw at fi ah wa ak téeméeri fas ak ku goreel téeméeri jaam ak ku am diggante asamaan yi ak suuf yu fees dell ci ay yiw Seex Tijaan moo baax mu ni ba léegi de kooku mooy benn bi kon nag sax ci def lii moo gën di def lu yonent bi tere yonent bi moo tere naafila gannaaw tàkkusaan ba timis jot loo yàkkamti yàkkamti julli xaaral ñu nodd timis nga julli boo jullee timis a pare am nga ay sa naafila yoo ci teg teg ko ci ba fajar diggante boobu kenn terewu la naafila loola neex ci ci rakaa nga def ko wa inna man qaala baada salaati subhi wa baada salaati alasri allahumma salli ala sayidina muhammadin nabiyi adada man salla alayhi min xalqika Cheikhna Sidi Ahmed Tidiane ñaan bii tamit soriwul fenn bu ngeen demee ci al ahzab wal awrad ngeen fekk ko ca bu ngeen demee ci miftaaxu saadati li abadiya ngeen fekk ko ca soriwul ñaan la gu jege bu ngeen demee ci jawahirul maani fekk ko ca bu ngeen demee ci yeneen téere rawdul muhib ngeen fekk ko ca ak yeneen téere tariqa bi ma sha allahu taala salaatu la goo xamante ni salaatu gu rëy daraja la yenent bi eh, sallallahu alayhi wa sallam am na garanti yu bari yum ci def eh, buñ ko jàngee léegi ngeen xam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na ko ci daraja boo dee julli ci moom nga ngistal sax yàlla nangu ko <laughs> xam nga li lii te Cheikh Sidi Ahmed Tidiane daf la koo digal ni na ko def gannaaw jullik suba ak gannaaw jullik takkusaan xam nga kon boo ko boolee celee yow foo amee jot pour taxaw pour naafila wala ngay waxtaan wala leneen xoolal julli gi bu la neexee nag benn yoon kese nga koy wax am na ci beneen riwaayaam bu ma gis boo xamante ni fukki yoon nga koy wax julli gaa ngi nii nag ba mu jeex allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyi adada man salla alayhi min xalqika wa salli ala sayidina muhammadin nabiyi عدد من لم يصلي عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه ليس جلقي فيرق ليم خلال نمونيخي مرة واحدة نانا نغدفكو بنيون في بنيون لكوه كون بودفيلي نتجيكوكو رفع له من الأجر في كل يوم مثل أجر جميع من من, من عبد الله من خلقه نينا na soo nga wax ko ben yon yàlla dina yëkkati ci yool bis bu nekk kem kem lu tolloog yoolu mbooleem ñi jaamu yàlla ci mbindeefu yàlla yi mbindeefu yàlla yi nangu jaamu yàlla yépp seen tuyaaba ya ñu am ca jaamu yàlla googa mawlaana cheikhna sidi ahmed tidiane nee na yow di nga am kem lu tolloog loola ñooña am yépp boo jàngee salaatu bi benn yoon mu ni cheikhna tidiane mooy wax de mu ni laa tarfau li maxluqin xasana illa rafaa lahu mithlaha mu ni du ñu yëkkatil benn mbindeef yiw wu mu am duñ ko ko yëkkatil lu dul lu dul yëkkatil nañ la yow lu tolloog loolu ñu yëkkatil mindeef mooma ci yiw jox la ko ci sa carnet te yow benn ñaan bii rek nga wax benn julli bii rek nga julli ci yéen ci yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nga ni ma xanaa nag xaaji omar xanaa kon nag lii moo ëpp salaatul fatixi ma ne la bu ko xalaat mukk sax bu ko xalaat bu ko xalaatati sax bu ko xalaatati sax salaatul faatihi mun ngaa cee jàng benn rek benn rek benn kese mu doy sa dund bi yëpp mu doy la mu doy la sa dund bi yëpp Mawlana Cheikh bàyyeegul de bàyyeegul ci Seydi Mouhamed Abdullah ibn Tilimsaani bàyyeegu ko de mi ngi koy jox ay ñaan rek yoo xamante ni nag yëpp nag mi ngi koy wax gannaaw jullik suba ak gannaaw jullik kusaan mu mel ni Cheikh Tidiane ñëw na nag léegi réglé suñu problème bi ñu am ci jamono ji kan léegi man su ma su ma su ma duggee ci jàkk ji julliwu ma nu may def nu nu may def léegi léegi naka laay def Cheikh Tidiane ne la sikaral waaw jéggalul yàlla li ngay am ci yool kenn xamu ko waaw boo defee lu yàlla tere sax la hawla wala quwata illa billahi boo ko jéggaloo mu jéggal la من وإن من قال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر هذه الصلاة عشر مرات من gannaaw جلك suba gannaaw جلك تاكسان كوتي ci def جيمو gii mu bëgg a wax fukki yoon من استوجب رضا الله الأكبر والأمان من سخطه في الدنيا والآخرة مني دانا ورتي يالله يالله تي موي ورال تي بابم جاغولا yow nga yayoo yow nga yayoo am ngërëmal yàlla ju màgg ja ak kóolute goo xamante ne sécurité bu mat sëkk boo xamante ne merum yàlla mooy sànjum yàlla dootoo ko amati ci aduna ak ci laaxira istawjaba ah rida irda رضا الله رضا الله الأكبر والأمان من سخطه في الدنيا والآخرة استوجب أي استحقه يعني أنت حديث أبو آه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم الوار التي جلت بو خمانتني مم دمنا بطول لكي جنت سو أجي ما جاتي أمي جاترك مسانغو آه وارتي مم فواجب نك لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلنا المحال هم لكن ناس مجوم الإبن عاشر موقع هذا فواجب لا يقبل النفي بحال وما بل ثبوت عقلنا المحال يلا موي ورالتي بوبام ني موم دا فا وارتي موم يلا خام لو وارتي موم لو وار نك كين مولا تكو داك دارا مولا كو داك ياو يا كو يايو ياو يا يايو نيت كي بو دافي لي موي يايو ام غرمال يلا جو ماغجا با بار يلا ديفال كو سيكوريتي مو ام كولوتي بو تولني merom yàlla sànjum yàlla doto ko amate ngani ma lolou munul nek ma ne la kaay kaay bul gawantu bul gaawantu yonent yàlla muhammadin sallallahu alaihi wasallam waxna ci sahabi yu kenn ko xamanteni sahabi yu bu bax muni usman mi usman mi munutul def jëf ju yàlla xol jo xamanteni ni jëf ju bon la dedet lépp lu mu defati rek lu bax la yàlla munutul xol ci mom lu bon amatu munutul def lu bon lépp lu mu def rek lu baax la su bëggoon def lu bon sax lu bon lu baax la ko yàlla di sopp te alquran wax na ko nee na yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat yàlla dina soppi seen i ñaawteef yooyu def ko muy lu yiw te yàlla nag kaay ma wax leen yàlla amul lu baaxul de yàlla li mu am lépp lu baax la yàlla amul lu baaxul lu baaxul yàlla amu ko yàlla lu baax rek la am hmm? te loolu yéen ñëpp d'accord ngeen ci ak man xoolal suñu jàkk ji ndaw ji rek nga xamante ne ñoo ko tabaxal suñu bopp ku ci bëgg dugal daal yoo xamante ne dafa am sobe nga ne ko eh, daal jàkk ji du palaasu sobe lu tax parce que jàkk ji dañ ko adressé yàlla rek dañ ko koy adressé rek dañ ni fii mooy néegu yàlla bi rek waaye ñun ñoo ko tabaxal suñu bopp bu ñu neexee suñu néeg yëpp ñu transformé ko léegi def ko mu nekk jàkk nañ fa daan sañee dugal daal ba mu nekkee suñu néeg léegi sañatuñ faa dugal daal ba mu nekkee néegu yàlla te est ce dugal daal ci jàkk dañ ko tere <laughs> ban teere moo ko tere gis nga léegi nag mbir yi dañuy fokk affaire bi leer suñu bopp rek ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala lu ko soob rek moom mu defal ko jaamam bu kenn wax ne lii mënul nekk léegi nag Cheikh Ahmad Tidiane nag ñu ni ko yow Cheikh Ahmad Tidiane doo ñu indil ñaan gi kon mu ni déedéet balaa ma leen indil ñaan yi dama leen ciy tegal ni wa tawalat alayhi rahma wal xifdal ilahi yàlla na dana ko ci toftalal gannaaw bi mu amee sécurité am ngërëmal yàlla yàlla dana ko ci tegalal mu am yurmaande yàlla ak kaaraange yàlla dana am kaaraange yi boroomam te loolu bëgg ko nag bëgg am kaaraange bëgg nañ am yurmande yàlla subhanahu wa taala nga ne ma waxal ma ñaan gi ma dégg man ne la bu fekkente ne nag ñaan gi yow daf laa bëgg a sori nga ne fan laa koy gisee man ne la demal nga seeti rufaat rufaat bii ñuy jàng bis bu nekk wala suba si nekk wala ngoon si nekk ah allahuma yaa muxyi rufaati demal nga seet ko ñaan ga ma nga ci biir julli ga ma nga ci biir nga ne ma xaw ma fan laa koy amee man la demal nga seet ci téere bu ñuy tuddee al fawzul azim wala nga dem ko laaj ko imam Cissé جل جانني ده جل لا شيء أنتي الله محمد عيسى السلام من الله صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك cheikh tidiane مبني لك nii la koy نك ak la nekk ca rufaat ci téere yi ma waxoon nga xamante ni Cheikh Tidiane yi moom moo raw yeneen sëriñ yi des rek la muy indi mooy gën a mat yeneen sëriñ si li ñuy indi jana tak lu tax yow li nga wax wuuteeg la nekk fële ma ne la Cheikh Tidiane moo raw yeneen sëriñ si ci des yëpp julli gi nag julli la goo xamante ni moom su fekkente ni jiitu na fi Cheikh Tidiane sax Cheikh Tidiane bu ñëwee dana ci dugal baat boo xamante ni wala mu yokk ci loo xamante ni dafay yokk affaire bi doole ndeysaan allahuma salli ala sayyidina muhammadin saabiqi lil xalqi nuruhu di ngeen faral di dégg yenn jaam yi ñu koy ñu koy ñu koy jàng waaw ndax li sa nekk kello rek moo xam ne mu toll kon mi ngoog ku ko xamul tamit nga dem jël téere wala nga dem jël téere bi mooy tudde muxtaaraat min rasaili cheikh seenaat yaan pareegul ci moom de nee na ko wa inna man qaala baada salaati subhi wa baada salaati al asr koo xamante ni gannaaw jullik suba ak gannaaw jullik taksaan wax nga bismillahi arrahmani arrahimi la hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim dépété ko bismillahi arrahmani arrahim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فكيون xam nga salatu be fukki yoon la la bi tamit mu ne la nga waxat ko fukki yoon xaraja min dhunubihi ka yama waladathu ummuhu nee da fay sa bàkkaar yep nee li rek boko waxe bismillahir rahmanir rahmani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi ali azim nee sa bàkkaar yep ay génn set wi ci keroog mu melni bis ba nga juddo won ci sa yaay xam nga kenn juddoowul indi kenn judduwul ñëw indale bàkkaar kenn kenn hadith ba nu ko waxe kullu mawludin yuladu ala al fitra انت يا محمد صلى الله عليه وسلم moo مني وكانت أفضل من سبعين حج وسبعين عمرة متقل متل متقلبة نينا واح بعد يي دي واح بعد يي نينا موغن جروم نيار فكي أج أك جروم نيار فكي عمرة يو نينانغو بن أت لن موي بايم دقو الجنة كندو لا رجلي كندو لا حساب بفرنغ يوبالي أي نيت جروم نيار فكي جني صح am na ñoo xamante ni seen aj seen benn aj dana yóbbaale juróom-ñaar fukki junni nit waaye yow mi nga xamante ni ab taalibe tijaan nga amoo loo ajee cheikh tijaan jox la loo xamante ni moo gën aj parce que amoo moyen yoo léegi sharia moom aj bi dafa la waxoon soo ko mënee rek léegi yow mënoo cheikh tijaan yi jox la loo xamante ni moom moo gën aj boo ajee ba pare nag def ko moom ngëneelu yàlla la boo ajee ba pare nek nekk ci Cheikh Tidiane def li mom ngeenel la kenn mun ci dara yàlla moy jox ngeenel nag ko ko neex te nak Cheikh Tidiane fayul de yàlla moy fay ku jàpp nak ni yàlla mënu ko bu la neexee bul def wa rafa anhu sabuuna balaan aysaruha aljazaam mawlaana Cheikh na Tidiane radiallahu anhu nee na yàlla dina la yëkkatil juróom ñaar fukki balaa ba ca gën a néew balaa ba ca gën a yomb ba ca gën a woyof nee na mooy gaana gaana feebar la bu bon ñenn ñi nag duñu gaana sax ci seen loxo waaye ci seen der la ñuy gaana mooy seen der yi dafay am góom yu am ay tipp-tipp yu yu yu yu metti naadu billahi min dalik yàllañ ci yàlla musal feebar la bu bon am na ñenn ñi seen digg gannaaw yi lay jàpp ñenn ñi seen kanam gi lay jàpp feebar la boo xamante ni mbaras feebar bu bon la yàlla nañ ci yàlla musal sénaat yaa ni nee na yàlla dana la yëkkatil balaa ba ca gën a néew ci juróom-ñaar fukki balaa yi mooy nga am feebar gaana feebar bu mel ni feebaru gaana wala feebaru mbaras hmm. wa inna man qaala shahida allahu annahu laa ilaha illa وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وروح من فكيان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر كتب كتبه الله من أهل الفردوس يلا دكوي بند فكيان ساكوحي يلا دفلاي بولي تيغا بوك نيغا خامتاني نيوم لا دك فردوسي الجنة فردوسي نك دغنا الجنة بو نيهلا واو الجنه بو نيهلا alxaaji ñang yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp ak mbooleem gaa yi nga xamante ni ñoom macha allahu léegi nag bii moom mosoon naa ko wax ci benn émission waaye ndekete cheikh na sidi ahmed tijaani bindaat na ko ci beneen lettre mu wa hadihi lsalaa man salla biha marratan waxida fa kaannama qaraa dalailu alxayrat sabina alfa marra mu ni ñaan gii nag mooy julli gii ñu war a julli ci yenent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne julli nga ko benn yoon da nga mel ni koo xamante ne da nga jàng dalailul xayraat dalailul xayraat bi nag da nga ko jàng juróom ñaar fukki junni la ilaha illa allah xoola ma dalailul xayraat imaamul jazuli moo ko taalif yéen ñëpp yéen a xam imaamul jazuli yena a xam niveau bi mu ag ci yonent yàlla Muhammad ak liko yenen yonent bi may ci bopam mom imamul Jazuli kilifa la mag la ku fi yag nak téeréem bi yag fi lol binde nañu tere bi or or te ba tere bi jeex ndax julli ndax ndax tere bu am valeur tay jii ci aduna bi waaw téere bi tay ji amna ci dalailul khairat yo xamanteni tay ji bo amé 3 millions taxaw ba koo jënd dañ la wax ne la waaye yow jógal fii yow téere bi mënoo ko jënd 3 millions la wax de dalaa'ilul xayraat ay salaatu la ay julli la yu yu ñu julli ci yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wasallam xoolal te dalaa'ilul xayraat boo duggee ci marché bi léegi am tamit muul yiñ ko muul yoo xamante ne boo amee 200 francs nga am ko xoolal ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay mbiram loolu dafay feeñal màggaayu ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam te julli gi imaamul jazuli julli ci moom waaye nag julli gi li dalailul xayraat di rëy yëpp yëpp yëpp boo ja jàngee julli gi benn yoon julli gi si Anasid Ahmed Tidiane bëgg a wax moo tolloo ku jàng dalailul xayraat sabiina alfa marra juróom ñaar fukki junni waaw waxal ma ñaan gi ma dégg mooy ban julli la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin صلاة تعدل جميع جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم julli gaa ngobbe nii la toll moom tamit boo اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الافات نكدو دول تي اي طالب تيجان ماغلين ديغل نينكو دم ديكو جانغ باخنا دي باخنا دي امنا ньо تاني سبان غون نك لنجكو جانغ رفات باخنا دي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تعدل جميع صلوات اهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم أمنا بين سيغا يلين تيري إندي جلال سيغا شيخ تجان موغانا وير موغانا مات نانا كجانغ نيانغي بين يون جلل تيان تيال محمد صلى الله عليه وسلم بين يون كسي من غانا كجانغ دلائل الخيرات مني وهذه الخواص نانا يلي جاغلينك من أسرار الله المكنونة التي لا يعلمها إلا من خصه الله بمعرفتها شيخ تجاني تنتنا غاي نغا قمنتني وحقنو أك غاي قمنتني وخنن تجمونو جي أك نغا قمنتني وخنن من يلي جاغلنك أي مبوتل يو قمنتني يالا موك نب من الأسرار الله المكنونة التي موم أي نب يالا لا المكنون يعني المستور البعيد عن الأعين واو مكنون أي مستور مخفي واو بات مكنون بلا بملا جاهل ستمك القرآن بطاي في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون القرآن لا يهدئ وواحد فنين فام وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون مم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون كان جانكت القعاني قسنين شهنا تجاني جلنا بعد مو مجرد بوخولي حديث جينا كوتي ولا القعاني من لا يعلمها خمك لي سكري ني باري باري ني فتي اي سرين اي برامي قم قم قم نيكو لدل كو يالا خمال لول إلا لدل من خصه الله بمعرفتها كو يالا جاغلي ريك نغير نغا خمكو نحن دفا جاغي yomb lool kooku wax mu xam ko ñëpp mës nañ koo dégg ñëpp ku mës a dégg xam nañ ko waaye nag ah affaire bi melul noonu de mu ne fal yastaamilaha al insanu bi niyatin salihatin sadiqatin salimatin min ashak wa suuri itiqad na ko jëfandikoo nit ki na ko jëfandikoo ci yéene bu sell bu dëggu bu mucc ayib ci mucc ci sikk sakka wala ñaawu pas-pas mu ne faman xasanat faman xasanat niyatuhu عذرك ما ذكر فيها نانا كيبكو قمنتني رفت النيينيم سلالكو دانا جت لنا قمنتني تدناكو من شيخ سيد أحمد تجاني تجاني وبالله سبحانه التوفيق والسلام في رسالة تجاني يمن لاتروي متلوك أه، كاران نف يالا مو خامل الموي كاران نف <laughs> شادي الفين يعرف فوفو أه، يا بوما تا بوما جلالي اي ست اي ست اي ست اي ست اسكا ام كاران Cheikh Tidiane mi ngoog bu ko defee mi ngoog xaaji maa la ubbilal gaa yi ligne bi dama bëggoon lettre bi jeex tey nga xamante ni tabaarakallahu dara du leen rëcc ci lettre Cheikh Tidiane bi ci ñaan yi ak ci salaatu yi mu joxe kon ligne baa ngok 88 628 10 95 su ko defee ñu ngi leen di fàttali كونفرنس بسوبا ان شاء الله نعم السلام عليكم علينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحاج مرجان اهلا حاج وصلت بالمعق والله بالني الحق بالني آه يلا يا الله نقول سلوكور اللهم امين آه، جالس جيكل سي باكار اللهم امين خولني برجر مند اللهم امين def ñu dëgg dëgg taalif si Ahmed Diarra Chérif. radiyallahu an mawlaay. waaw ñu dee si dekk si. allahumma amiin. ak suñuy اللهم امين يا الله لله كونتان يا يلا كونتان يا ما يدل التوفيق على القران الحمد لله ما يدل التوفيق في سيدنا الشيخ رضي الله عن ولاي الشيخ يا الله نكون مورلو اللهم امين يبقى شكرا لبقى دقي سيد يا الله يا رب ولي يا الله يا رب ولي ما في الدرس بما تدوس اللهم امين اللهم امين يا الله التوفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جرجف جرجف جرجف نيان بال كونفرنس سوا ما ديك نكو waaw kay ñu ngi koy yëgal conférence bi suba xaaji ak mbooleem gars yi nga xamante ni ñu ngi ci ligne bi ñu teewee conférence bi suba incha allahu taala fii rek la ci buntu Kocc Barma incha allahu ci escad Urbam naam. allo salaamaaleykum. waaleyna waaleykum salaam. waa kay ñu Cheikh Ahmed tijani Cheikh Ahmed Tidiane. Touré Touré Touré Mori. maa ngi ziar bu baax. wallahi ziar maqbula. di rafetlu émission bi bu baax. jërëjëf jërëjëf Touré. yàlla xam na ni saa yu tàmbali damay tal caméra boobu الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تري يا الحمد لله تري بفلا ندر اسكي ما شاء الله نعمة تري والله نعمة هكذا هكذا ما شاء الله والله والله كنت الحمد لله يعني يلا كنت انا جيد من من كثيرا ان شاء الله ان شاء الله يلا خلنا والله ما شاء الله تري جرجف جرجف جرجف تري جرجف ما شاء الله ما شاء الله تري جرجف jërëjëf yéen a am jërëjëf wallahi yal na yàlla fayal ñu leen yiw defal leen barke tabarakallahu Touré nag moom soo ko waxee rek xel yëpp dafay dem ci sëriñ Haadi Touré macha allah taala ak ñi nekk ci Touré Touré yëpp nag Touré Touré Ndar yi Touré Touré Saalum yi macha allahu taala Cheikh Tidiane nag moo ci ëpple Touré Touré yi Cheikh Tidiane yi moo ci ëppale ah tariqa bi nag ndeysaan moo fi nekkoon moog tariqatul qadiriya ñoo fi nekkoon ah, Cheikh na Tidiane bi mu ñëwee nag mu jël gànn wàll gi lépp waaw léegi nag ah, macha allah taala yal na yàlla nangu yal na yàlla barkeel tabaarakallahu

loolu la ñu wax euh, man insha allahu taala gën jaa naaj treize heures dina ma fekk foofu insha allahu taala bismillah naam السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا لباس لباس كيف الحال؟ والله مرحبا لباس دين لا باس والله الحمد لله والله ندوك سوال ندوك سوال baal nañ ñaata baal nañ leen. baal nañ la xàq baal nañ lu yor tamit. di baalu auditeurs yëpp. ñëpp ñu ngi lay baal macha allah ci sama tur ñëpp ñu ngi lay baal. yàlla nanguñ koor gi. allahumma amin. te jéggal ñu suñu rëcc rëcc. allahumma amin allahumma amin. waxtaan wi dëgg dëgg neex na. alhamdulilah. am Cheikh Tidiane moom ku ñu ci andil ay mbiram. waaw. yàlla xam na ne bëgg nañ la ba ilal ba ilal abad. wallahi ñun tamit kadalika. yàlla xam na loolu. ñun tamit kadalika wallahi. te loolu am na. yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam Euh. moo ñu jàngal ni képp koo xamante ni daf laa wax ni la bëgg naa la ngir yàlla euh. xamal ni yow mënatoo ko fay na nga ko bëgg lu toll ni nga ko bëgg waaw yàlla baax na wallaahi yàlla baax na ñu ngi jaara waa Yoff yëpp waa ñëpp man tamit maa ngi leen di jaara ne euh, Mor Faye dëgg la ñoom ñëpp daal macha allah jërëjëf macha allah jërëjëf libaas kontaan nañ ci yow macha allah taala jërëjëf jërëjëf libaas suñu soppe la ndeysaan ku baax la amna nak lo xamanteni xamante ni man ak moom kese nag man ak moom kese ñoo koy waxtaane alxaaji du fekke moor du fekke hatta imam chebe sa du ko fekke man ak mom kesse kesse kesse ñokay waxtane insha allah taala kon su ko defé ñu ngi inviter ñep comme niñ ko waxé won euh di ñaanal yàlla subhanahu wa taala directrice yalla yàlla barkel ko def ko deug deug talib Cheikh Sidi Ahmed Tidiane def ko njabotam may leen ñu mokal alquran da nga yek ci mom so de waxtan ak mom nga yëg ci moom macha allahu taala allahuma la adur ni mu bëggee yàlla ni mu bëggee yonent bi ni mu bëggee alquran ni mu bëggee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ni mu bëggee lu baax yàlla na yàlla sàmm ko xaar ko bijaahi sayidina moolana muhammadin salallahu alayhi wa sallama ñu ngi ziyaar bu baax beneen yoon Thierno Hamidou ak mboolem ñi nekk ci gannaawam di ndokkeel ñëpp di ñaanal yàlla jàmm ñëpp di leen wax axukum fillah alxaaji Omar ibn alxaaji Abdou Diagne wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala